ginnaaw bu ñu leen nuyoo suñu mbokku internet yi di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission bi di yow la kan yow la kan nag day faral di dalal ay kàngam moo xam ci wàll boo mënti nekk di ci yëngu tey nag dañoo dalal euh, artiste bu mag naan ci wàll bi nga xam ne nii mu ngi ciy bay waaram balaa ñoo xuus ci ci ci biir waxtaan bi dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ak ñi koy seetaan Mamadou Seck lay wuyoo ñu gën ko xam ci turu Secka Secka ñu ngi leen. salaamaaleykum maa ngi nuyu képp kuy internet bu canal banlieue TV nga yi ñoo ko moom ni ma ko waxee woon sànq rek à chaque fois kàngam bu mag lañ fi dalal émission bi di yow la kan nag dañuy fara di waxtaanee ñaari pàcc bi ci njëkk moom mooy parcours invité bi. nu mu def ba dugg ci li nga xam ne ni ci lay yëngu beneen bi ñu fa yéene waxtaanee actualité mais nag balaa ñu xuus ci waxtaan bi euh, du ñàkk ni am na ay kàddu yoo war a mën a sànni ci temps yi nga xam ne ni dal na suñu kaw muy décès wu Papa ñu gis ni euh, am ngeen relation bu rafet yow ak famille Balago euh, ñàkkul ni am na kàddu wax. waaw xanaa di jaale Sénégalais yëpp. coon moom ñun ñëpp ñoo ko bokk rawatina nag ñun artistes yi nga xam ni ñun la bokkaloon métier ba pare kenn ku nekk ci mu jox la sa cër ba mag man sama mag la sama xarit la vraiment anniversaire feetee loo ko may gis ni à fois su ñëwee mbégte rek laa ciy gis su ñëwee moom it di nit koo xam ne li ñu mujj a waxtaan mooy projet CEDEAO bi yéen am ngeen ci wàll jeexal ak waykat yi rek après yéen ngeen commencé yow ak sa nawle yi ngeen bokkal métier bu ngeen di def muy lu metti nag ndax coono man ni may waxee bibliothèque la nit ku baax la wayam woo jul jël rek benn par benn benn bu nekk rek mën nga ci jëlee lu la jëriñ muy perte bu mag ci Sénégal mais may jëm ko dàqal fuuf fii yàlla mën na ko sañ na ko taxal na ko ci àjjana yi gën a kawe yow premier jour biñ la ko euh, waxee ni Papa Thione génn na àddina nan la la def. nekk ak nit sax dem ba yaakaar ni xanaa kii bu dee ci météo rek lay ñëw muy ni mu bette jaale euh, njabootam bi nga xam ne ni moom lay moom la bàyyi ginnaaw dañuy daal di xuus rek ci waxtaan bi euh, Secka parcours Secka nan nga ban moment nga toog ba sentir yow mii da nga war a mën a jóg jóg bi tur la kan. yow la kan nag ku ñu ko wax ah lu sama sama xam loo xam-xam ma sàmba ma sàmba gën laa xam boppam damay am mbégte ak kontaante pour wax man la kan man ci banlieue bi laa juddoo Thiaroye quartier bu ñu woowee. kurumbu kii juddu fa nekk fa ak samay way jur adunay dox ba benn moment waa caaroy ñu xurumbu ak ay melokaan neexul ñu ànd ñun xale yi ak suñu mag ak suñuy baay fexe ba jële fi xurumbu ki ko sant yàlla boobu nag fekk na maa ngi jàng ci benn école arabe bu ñuy woowee madrasatu Xaadim Rasul fa laa doon jàngee commencé di def théâtre waaye bi ñu dindee xurumbukki ci koñ bi tudde ko sant yàlla dañu forme ASC ASC mooy association sportive et culturelle def ci benn troupe théâtral ci laa commencé di def théâtre ba yàlla dogal benn année équipe bi ñu dendal muy suñuy naataango di suñuy nawle di suñuy dëkkandoo muy ASC Mengo gañe coupe artiste xam nag te caar yi muy El Hadj Ndiaye di may benn concert concert bi mu leen may nag ci laa dem saw Karim présenté ko maa ngi ko lu jouer benn morceau bu tudd Baye Goño invité ma ci kaw chaise yi may kebatu ci morceau bi def naa ko après dem man continuer ci def sama théâtre ndeke élage Hadj loolu ma participé ci morceau bi marqué na ko deux jours xaw trois jours après mu ñëw sama kër ànd ak ay musiciens ni ma dafa bëgg ñu ànd lii moom Euh, waaw xam nga man nag famille bi ma dugg dëkk euh, bi ma juddoo waa ci njëkk a def musique samay parents bañuñu ko mais dañ ko xamul muy lu metti parce que bi may def musique xam nga nga bëgg a def musique ba pare bëggul nag loolu nekk mais wax dëgg yàlla samay parent ànduñu ci woon pour ma def musique mais nag. ñoom liñ ma ci doon bañal parce que booba liñ jàpp rek képp kuy def musique rek soit di nga màndi wala nga def leneen muy lu metti ma koy def di ko nëbb di ànd ak tëggkatu sabar yi jàpp parce que aar bu xisee nekk ci yow dafa fiir doo ko boole dara loo ko booleel mu nangu ko mais may naxanteeg samay way jur parce que way jur tamit dafa foor tor ci doom may naxante ñoom di naxante ñoom bañ am seen aval pour euh, ce que mos ci dund loo xam euh, maanaam man nag dunduma ci lu ma métti maanaam euh, dund naa ci métti mais méttiwu waaw waaw dund naa ci métti mais méttiwu ma mooy nit ku mbir soo ci bëggee am ndànk dañ ci dajeeg lu neex waaye dañ ci dajeeg lu naqari yu naqari yi ñu ciy dajeel di nga dem ba ay mbégte lañ soppeeku maa ngi fàttaliku benn bis bu ñu am benn spectacle théâtre CNEPS bu Géejawaay fekk équipe bi ASC sant yàlla qualifié def naa régional ñu dem ñu guddee tëdd si mu tombeek nawet parce que xam nga nawetaan ak euh, euh, compétitions yi ñu doon théâtre ci nawet lay nekk mu ngi taw taw bu métti ñëw paa bi nii dama dugg ci kër gi keroog ci métti bi laa fanaan mais nag li tax méttiwu àdduna dox na ba ma dugg ci hôtel cinq étoiles ca États-Unis dama fàttaliku ni rek kon bis bii bis bële la ma doon fayee bis bee laa leboon mais fay nañ ma ko bii bis moo tax méttiwu te boobu tamit lu ma gëm samay way jur luñ doon bañ ma nekk koo xam ne Vous avez le bac et vous aimerez continuer vos études dans une grande école, alors ne vous inquiétez pas. Isaac Pikin est là pour vous servir. Après une première entrée réussie, Isaac Pikin vous ouvre à nouveau ses portes. Oui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour cette deuxième entrée dans la plus grande école de la banlieue. Avec des salles de cours espacieuses, confortables et un personnel dynamique et professionnel. À Isaac Pekin, tous les diplômes sont reconnus par le CAMES. Banque, finance et assurance, création et gestion des entreprises, comptabilité, gestion et finance, commerce et affaires internationales, transport et logistique, gestion des ressources humaines, journalisme et communication et marketing et communication. Vous qui avez le niveau bac, vous pouvez étudier à Isaac Pikin. Comment ça En s'inscrivant à ces différentes filières avec un diplôme de technicien, à savoir DT, comptabilité gestion, commerce international, marketing, gestion des entreprises, banque assurance, transport et logistique, informatique et secrétariat bureautique. Et ça ne s'arrête pas là. Pour cette deuxième rentrée, votre école de prestige vous offre des bourses d'études et des permis de conduire à des prix défiants toute concurrence. Alors, chers élèves et étudiants, une seule adresse à retenir. Buntu en face l'école Notre-Dame du cap Pour nous joindre, appelez le 33 854 98 54 ou le 77 365 51 78.

def plus d' euh, euh, euh, waaw man yàlla def na artiste la boo xam ne relation nice la am ak artistes bokk naa ci artistes yi ëpp lu def duo.

Good te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk moom mooy def choix def sa morceau boo gis nañ ne aussi tamit moom que morceau comme man ni ma ko xamee ak ni mu méttee nga def sa morceau ni diw laa bëgg bu participer ci loolu tamit maa ci profité au passage di leen wax ni di leen jaajëfal ñoom la rek mais li may def li ma ko dàq foofu la. est-ce que euh, métier bi nga xam waaw xam nga métier nag boo ci nekkee ñaar fukki at ak nangam te boole woo ko leneen wax dëgg yàlla ci laay dund ci laa yor sama kër ci laa yor sama njaboot te yàlla def na tamit wax dëgg yàlla maa ngi ciy dem ci àdduna. macha allah euh, ñu waaw waaw mais loolu nag loolu nag mooy ñi ñi bokku teen ñooy laxasoo mm-hmm. loolu la rek mais yéen yéen journalistes yi sax da ngeen di <laughs> moom ñëpp ah, ñi bokku teen ah, xam nga yow tey mënoo nekk journaliste que la nekk jaaykatu géej gi ngeen di jote dara <laughs> moom moom jaaykatu géej ba ña muy jaayandool lay joteel yow journaliste bi dëkk moo metti rek ak ñoo nekkandool te bari na looy dégg ay waykat yu jote yàlla xam na ni duñ jote dara seen i fans wala seen i soppe rek ñooy te yooyu moom mënut mm-hmm. ah, wax mm-hmm. ñooy wax rek gars yi ñooy wax rek mais wax dëgg yàlla. waykat yi ñëpp benn lañ parce que xam nga mënoo nekk nit kuy wax pour jubale nit ñi. mbaa ngay wax pour nit ñi ànd di wax pour nit ñi di nekk benn ba pare di xiiroo ak a ŋaayoo ak say nawle ah. ah. ñu ma ko dundee mooy ni ko ñëpp dundee parce que Covid bi bi ñuy ñëw dañu gis président de la république génn ni am na benn virus bu am il faut nit ñi toog seen kër il faut nit ñi di raxasu il faut ñu il faut nit ñi respecter les barrières yi ñun artistes yi ñoo njëkk a ànd ak moom sensibiliser ko nit ñi gis nga ci def nit ñi taasukat yi amul événement wala lu mës a am ba taasukat yi ànd def ci morceau di Covid bi ñëwee gis nga ñu def ñun suñu mouvement bi tudd ci lañ gis nga liñ def man Mbaye Sy Ndiaye Dame Sène Pape Ndiaye Coppet Ngoné ah, Ndiaye Géwal Salam Diallo ñun ñëpp Ndeye Assa Ndiaye bi ñun ñëpp ànd def benn morceau resté c'est vous xam nga. def morceau bu doy waar bokk nañ ci ñi gën a neex la morceau ci xam nga ànd ceeg moom kon affaire bi bu demee ba ñu toog leen seen kër ñi ñëpp toog seen kër bu nit ñëpp toogee seen kër mu metti ci artistes parce que koo xam ne ci daje yi ngay jëlee li ngay jëndee soom sa kër mun toog loolu nit ñi metti li ma ko dundee moom la ko sama moroomu artistes yëpp dund muy lu metti waaye nag fekke moo waral jàmbat li muy métti yëpp yàlla kum dund kum euh, dundal ren ba déwén dina lekk ren ba comme nan. ba xam <laughs> mais xam nga xam nga xam nga artiste bu toog un an liggéeyu yow xam nga bu fekkee miin nga artistes yi ak ni ñuy dundee artistes yi rawatina yi jëmale. lu baax la ñu bëgg moom la ñu bëgg di lekk lu baax la ñu bëgg di solo xam nga yor sa oto war ciy def essence ñu jox la benn sob boo xam ne yow mu doo ko dépensé sax fukki fan ci ku toog un an liggéey day métti. yéen gis ni ngeen gis ko proposé woon état bi bu leen ci jàppale. danañ li mu def na ngeen mel ni ngeen ko xaw a xeeb da ngeen ko dëgg la tuuti na léegi yéen lan ngeen ban proposition ngeen proposition bi ñu amoon mooy li li li li yëwénal garage li garage bi euh, def di jël ci du ko jël am déet li école di jël grand théâtre du ko jël comme. ni ñu mën a fexe ba dajale élèves yi dajale ñi tukki dajale ñi nekk ci garage yi loolu waroon nañ ko salle de spectacle buy jël deux cent personnes ñu ne leen kat dafa am feebar boo xam ne jege yanta bi de nañ ko wàññi mënatul passé cent personnes mais bu ñu bàyyi ñu ñu liggéey parce que ñun li ñuy kaas yëpp mosuñu gouvernement may na bàyyi leen ñu ñu liggéey rek dañuy wax waaw teg ba ci ci lañ euh, xam nga xam nga xam nga xam nga affaire yi waaw yëkkati nañ mais affaire yi fi mu yëkkati ko ak fi nu ñàkkee suñu suñu mag suñu papa suñu xarit coon balaa ko dafa sore fi mu ne même bu ñu ubbee tamit xool yi joué ndax euh, artiste boo dem rek euh, am na lu mu yëg ci naqar ci xolam ndax ki ñu ñàkk du ko ndaw waaw. est-ce bii may wax ak yow maa ngi studio di def benn morceau euh, benn single bu mu génne ndax nag nit ku ne ci liñ la xam saa yoo àddoo rek ci loolu lañ lay déglu. waaw maa ngi liggéey waaw. maanaam loo xam ne nii dund ko ci milieu bi buñ euh, la ni buñ ni sekkaare ci côté musique sa ci loolu lay dem à chaque fois. comme comme comme par exemple. lu neex lu naqari. waaw waaw comme comme euh, saa yu ñu nee sekkaar balu naar rek. Mm-hmm. Euh, après daf may fàttali bi may doog a def morceau bi. Mm-hmm. ma def morceau lëmbalu naar man bi may def lëmbalu naar li ma ci jublu mooy intégration. parce que ci commencement morceau bi maa ngi wax morceau bi ñu ngi koy may waa gànnaar ndax diggante Sénégal ak gànnaar benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu tax ñu jël way wii tudde leen ko def morceau bi mais ñoom niñ ko déggee woon ak man li tax may way bokkul muy lëmbalu naar après nag naar bi ci kaas ba benn bis yi amoon na association des mœurs bu amoon fii pikin organiser benn euh, programme bu ngand boobu na technopole bi melagul nii quoi ci technopole bi lañ ko doon def programme bu naar yee ko doon def am benn xarit ni ma comme def nga morceau bi nañ dem léegi biñ ñëwee ngandi événement la woon nag biñ ñëwee après ma dégg présentation bi kii def présentation ni dafa am suñ benn rakk nag bu dëkk ci dëkk bi di sénégalais yi wooy ñu ñun naar yi moo woy lëmbalu naan rek ma dégg paa yi jóg kooku mu fi yee commencé te boobu am na ñu ma dendal sax maa ngi dégg ñuy am ma jaar ci suufu seesi ndànk génnaat à chaque fois suñu waxee lëmbalu naan rek sama xel ci loolu lay dem waaye loolu tamit après dem nañ ba ku ci ne xam ne lii li tax ma def ko ñoom ñun ñoo bokk lépp ñaata yoon naa fi dem Mauritanie jëy ji fa maa ngi nuyu sama xarit sama frère Islim yóbbu na ma maintes reprises Mauritanie ma dem jëy ji waaw non xam nga diggante Sénégal ak Sénégal ak dara mënu fee jaar lu dul jàmm ak salaam. mën nañu wax ci événement yi ngay faral di di def bi ci gën a fës muy guddi pourquoi choix parce nit du namm lu nit ñu namm ku mu gisul a gis man aaw rek laa yor xaw ma ñaareel mënumaa utal guddi ñaareel te amaguma ñaareel yow nag comme sama doom nga te sal xam naa ne loolu naqari na la utal ma ñaareel yow it sa boroom kër fexeel moo am ñaareel rek. ah, ah kon baax na comme. macha allah STK kontaan nañu torop torop torop vraiment ci wuy bi nga wuy si fii ci canal waaw man tamit euh, ngi wax di am ndax yow sama nga sama xarit nga la yar dara ba liggéey boobu nga soxla ma ci euh, man maa la wax bul déplacé wu man maa lay fekk fi nga def ak yow émission bi parce que dama bëgg képp ku dégg RTS rek dégg Canal Banlieue TV bu jaar ci yow ni ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal parce que tamit ay nit suñu nekkee ci benn école di fa gëstu ba seen xel mayaat lay waat dellu ci école bi wane li doon gëstu yàlla na leen ci yàlla may ndam euh, yàlla dem ba nekk télé bu mag télé boo xam ne ñëpp moom la ñuy seetaan yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na leen ko defal maa ngi nuyu au passage waa ISEC yëpp vraiment di am mbégte waaye nag mbégte bi ñu ngi commencé ci yow. plaisir partagé Mamadou Seck ñu gën ko xam ci Secka di leen wax ni rek moom la ñu daloon tey seen émission bii di yow la kan ni lay faral di demee à chaque fois di leen jox dig daje fii ak yeneen i fan ak beneen kànga jaa ngeen jëf